tëj la si prison bi bi nga ne am na benn Gambian broda bu ñëw ma dimbale la like mën nga ñëw wax tuuti si loolu noonu. yaa boobu boobu boobu ko suma koto boobu moo ma dimbale daal. xamante ngeen depuis Gambia. yaa moom Sancha Bala Dika. ok Bakary Jammeh la tudd from ñoomi so moom moo ma gis because man dañ ma téye tap pour dem tëj ma because dañu ne xaalis ma ne amoo xaalis so dañ ma mbéj mbéju métti sax xam nga mënuma fay xaalis at the end ñu téye ma pour dem tëj ma kooku mu gis ma mu ne ma xanaa kii du ma ne ko booy man la. man ne ma lu xew ma ne ko non ma téye pour dem tëj ma so kooku moo ñëw mu fay 20 dinar gars yi bàyyi ma noonu lañ continuer dem ba si kanam ak ah, soo time mu ñu doon génna ñu di bari la waaye amuñ xaalis so booy boobu after kooku ma moo ko génne xaalis boobu because moom mu ngi amee passeport mm-hmm. magaa moo ko yónni xaalis tuuti si local transfer dem jël xaalis bi isi ko so loolu lañ dee cop léegi tuuti ak fay paas ni tuuti so driver bi tamit ku nga xam ne kooku moo isi moom moo ñu dimbale tamit di dive na checkpoint yi ba isuñu ba ñu duru ko soo ñu dem birilu UN bind suñ tuur foofu pour mun a dellu si ñu suñ trip bu ne i Gambians ngeen wala. yaa yëpp Gambians lañ béy donc ñu nga xam ne ñoom man dama xam foofu yu Sénégalais boobu ñaar ñaar nit la. Mm-hmm. Sénégalais waaye tri ko def yëpp dañ bind seen tur because of ñooy Sénégalais lañ. Gambien leen waaye dañ. waaw UN ne ñoom. yaa lu tax def loolu noonu. because ñu ne dañ dëgg ni Eh, ministre because xam nga according to ñu ñu nga xam ne ñoo nekk fii di wax lu façon yooyu mhm. dañ dee call seen nit ñu ne waaw soo leen dellu because of bëgguñ seen gars deelu gars ñëw gars yi leen bëgg a téye foofu noonu daal waaw ñu taxaw foofu ñu mën a liggéey am xaalis mhm. yaa ngi fa yaa ngi place boo xam ne amuloo fa liggéey ba pare ñu ngi laa soo fa ñëwee fii Mr President ñu ne daf laa tëj xam nga <laughs> soo waxi nga xam ne kenn mën koo understand daal nit dafaa nekk biiri ñaami sax mu call waa këram yi ñu leen waaw man maa ngi fii maa ngi biiri Tripoli fekk yaa ngi biir faake biir yaa ngi biir ñaami soo loolu moo di tax boo yi di gën a jóg di génn pour dem lifin pour digga baagu yi xam ni am na paas bu enough wala ku nga xam ni amuloo paas xaalis bu ndaw nga am rek da ngaa force sa bopp pour dem at di en coono bu yow da nga am coono bi pare waaye ñu la ñu la oo pour nga dem ñoo ñoo la gën a sonal ok waaye waaye euh, like yaa ngi wax lu am solo nee ñu bëri suñ demee ne euh, dañ wax ne ñoom Sénégalais euh, gars yi i Sénégalais leen fekk i Gambien leen because dafa am ñu leen di call ne leen su doon ñëwee Gambia nguur gi dinañ leen tëj. ak ak yow yow da nga bokkoon si ñuy noonu wala yow da nga wax gars yi. man sa man sa foofu laa ñu nga xam ni ñu ñun 74 people la waaye only 4 people ñu nga xam ne ñoo ñoo ñëw straight to Gambia. ok ñu ñoo ñëwoon daal di Gambia si airport bi so dañu waxoon gars yi after man sa dama bëggoon a binda suma tour bi Sénégal pour ma mën a wàcc Sénégal fay paas ñëw waaye after time ma dëggee ma ne ko xaaral ma dem ba su ma demee li kii kii mu tëj ma moo ma gënal wàll bi gars yi tëj ma. parce que léegi ba pare yi suñ ma su ma wàccee biir airport bi tamit suñ ma laajee lan moo xew biir Libya dinaa wax yëpp dara duma ko bàyyi gannaaw. parce que xam naa ne su ma ko waxee ñeneen yi ñaa ngi fii pour plan dem mun nañ relax. ok toppatoo lay try leneen lu nga xam ne mun nañ koo def. ok waaye tamit ah, li ma jeexal mooy ah, dinañ toog di faral di gis ñu bëri ñu nga xam ne suñ demee si yoon bii nii gars yi ñëw. Ah, naka dañ dee daw télé daw rajo daw yépp duñ dee bëgg a kenn xam ne gars daal bokkoon na si ñu nga xam ne dem nañ si yoon bi nii ma bëggoon a xam rek yow lan moo gën a tax nga am cawarte ak kaataan pour ñëw toog si kanami tele bi nga xam ne aduna bépp ñu ngi laa seetaan pour share sa story maanaam ah, li nga xam ne loolu nga jaar ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. waaw lu tax ma loolu mooy xam nga man bugguma coono bu ma lifi coono bu ma dal. mu dal ñeneen mu dal ñeneen ñi mm-hmm. nga xam ne demuñ soo amee xaalis pour dem bala ngaa jël xaalis bi nga fay nga ne da dem biir bi jël xaalis bi nga def ko yeneen business. at wala nga mu jël xaalis bi nga dem save ko banque su mun ngaa nekk di liggéey soo liggéey mun na yàlla mun na laa dimbale soo demee mun ngaa nga am yoon. am yoon bu nga xam ne dafa safe nga mën a dem. waaye man ñaanuma kenn ku nga xam ne coono bu ma dal mu dal ñeneen yi nga xam ni coono bu ma dal man time ma demee xaalis bi mu yaaxa si man bugguma mu yaaxa ko si ñeneen yi. ak dóor yi. yaa ak dóor yi nga xam ne dal na si ñun ak ñi nga xam ne. ñaaka ne seen baag yi foofu soo bugguma ñoo ñu dal keneen yi sa léega su joxee kenn du la dimbale jox la léega sa ndox su joxee kenn du la dimbale pour jox la ndox soo balaa lool ngeen toog fii relax ku nekk si li nga nekk nga téye ko ak ñaari loxo. ok yow uh, am nga yow am nga am nga métier uh, boo nekk di def Gambia fii nii. yaa maa ngi liggéey plumbing because balaa maa dem sax dafa mel ni gars yi ñu dañ ma wax ni monde la dem. ok si suba si sonde ma jokk suma kon moom dama ñu liggéey ma dem si suma boos maa ngi liggéey ak dañ liggéey one o'clock after suma daat call ma mu ne ma kii pare na mun ngeen mu ne pour ngeen ñëw ngeen dem after suma boss laaj ma lan moo xew man ne ko man sax xamul lu xew because bëgg ma ko waxee su ma ko waxee du nangu ma dem. nga dem mhm. yaa soo loolu ma tam waxuma ko sax ma ko nubar ma ne ko non xamul lu xew sax after mu jëm alhamdulilah because maa ngi liggéey moom dafa ma waxoon sax mu ne ma am na étage bu ñu startoon fale Sukuta mhm. étage boobu suñ ko jeexaloon man dama am suma xaalis moom mu am xaalisam mhm. waaye xam nga yëpp laa bàyyi si gannaaw ma dem so fu mu nekk nii ñaaka naa loolu yëpp ok way léegi léegi ñëw nga Mbassa Boss jëlaat na la pour ngeen a liggéey yaa balaa maa ñëw dama ko koloon ma mhm. ne ko maa ngi nii dem naa biri li bi waaye yoon bi sotti wu daal ma ne ko yoon bi mun da te coono te coono ya, amoon na ma ne ko ba pare dama eh, dama sonn trop foofu ma mhm. ko soo lu ma dal bëgguma mu dalaati kenn ma ko soo nga baala ma because tay ma doon dem taaguma la ma ne nga baala ma aha mu ne ma loolu du problème mun ngaa dellu si ñëw bi Gambia affaire nga kol ma waaye depuis de ma ñëwee Saturday si guddi laa aka fii boori five o'clock mhm. si suba waaye di ba léegi kol ma ko waaye dinaa try this because right now nii man sa understand ma suma yaram bi sax. Mhm. foog ma dem si hospital bi gars yi check ma. because lu nekk suma biir yaram bi xam ma ko. du ma di mën a nalaw du ma di mën a lekka lekka yu correct sax. Mhm. damaa toog di lifin rek su ma toogee ba soo na tëdd tuuti rek mënuma lifin. ok waa léegi euh, gis nañ ne euh, amuñ time. yow daal sa mujjanteeli kaadu. looy am pour wax ndaw ñi nga xam ne ñii bëgg nañoo awee yooni gannaaw ida si géej bi wala si désert bi pour dem Libya from Libya ñu dem ida Spain o Italie daal yow loo am pour wax ñi nga xam ne ñu ngi toog di seetaan programme man lu maa ñaan si booyi daal nañ toog kenn bu mu génn sa digga bi because Gambia man ifin man di moori sax wax na ko woy na ko si woyaami nii mu ne doo day xam Gambia neexaayam bi Gambia la Gambia fooy bukalong fo ni finta daal mm-hmm, mm-hmm. booy bari ñu foofu sax ñu ne suñ yàlla su leen dimbale bi gars yi deelu si suñ ñëwee dinañ dem si Mandi Mor ñu wax ko pour mu répéter rek clip bi tamit. Mhm. parce que pour nit mu taxaw sax mu ne la am Gambie ak Sénégal rek la am. Mhm. kenn du la mun a taxaw mu ne la nii so dañu war a lifin loolu ñun booy ñu xalaat lan moo xew ñu fokoo si luñ nekka ñu taxaw Gambia fii ñu liggéey. parce que ngeen ne da ngeen mën a tekki tam biir Gambia. yaa because xaalis mu ngi fii soo liggéey mun nga da am xaalis. Mhm. because doo mën a toog xaalis fii nga la fii. ifin Libye sax soo fa demee da ngaa liggéey nga am xaalis. waaye doo mën a dem foo xam ne. liggéeyuloo nga am xaalis loolu dem na possible soo ñu toog fi ñu liggéey ba ñu kóol ku nekkal si loo am yàlla lu mu la war segal nga am ko man damaa ñaan booy ñu ku nekkal ñu relax fii toog liggéey suñu waa réew mi ku am sa ku am sa métier ku nekk di jàng nga jàpp si tegaay lu ñëw wax yëpp moo nekk biir li bi 100 dollars per day tamit loolu du loolu yëpp amut loolu loolu yëpp fen la go wax rek nga ne ko Bakar fen. ok Bakar loolu du thank you very much for the time. Yeah. Well, beautiful viewers, we have had his story. It's the it's not a fiction. It's not a movie or theater or some comedy act on stage. He went to Gambia, Gambia to Senegal, Senegal to Mali, Mali through Nyami, and Nyami then to Libya. He said it himself, 13-year and 14-year-old Libyan rebels were the one beating them until they had to kill four people from another country. The world we live in is a global mirror. And the choice that you made depends on you. It's your life and it's your future. Before going through such rigorous journeys, it's good to think about it and know that there's no place like home. It's up to you to decide what you want to do. Just like I always say it, the world we live in is a global mirror and every man's face will one day reflect upon it ñun ah, ko Baro bokkoon na si ndaw ñu nga xam ne gars yi bokkoon si yoon bi pour dem euh, from Gambia ba Sénégal Sénégal dem Mali Mali ba Niger euh, Mali to Burkina Faso tam euh, Burkina Faso ba Niger Niger gaa jógee Niger gars yi dem biir Libya pour seet yoon rek naka la ñoo mën a demee Espagne wala Libya waaye moom lu mu wax ñun ñëpp dégg neen ko soo yëpp daal yëpp ñun ah, suñ loxo la des ñun ndaw yi waaye nag foog naa ne lépp li nga xam ne ah, nañ ko am suñ dëkka rek duñ ko mën am feneen di leen wax jërëjëf te di leen ah, jox beneen dox daje su ñëwaatee seen yoon rek loon di man la woon la Abdoulaye Badji jërë ngeen jëf